waaw soxna soxna Marème Mbacke bu loolu jàllee dañuy sant itam directeur HLM bi doog a ñëw dafa gu fi weer nag mais comme ni ma ko waxee moo gaaw ñu gaaw li nga xam ne depuis un an ngi koy négocier nanguwuñu ko moom bi mu ñëwee nangul nañu ko muy yokkal ñu euh, li nga xam ne moom lañ ñu waroon a jox pour ñu faye ko bu ñu génnee cité bi fa ñu jëm taux bi pour ñu déggul tubaab li ñuy war a jox ñu di ko faye fa ñuy dëkk ndax suñuy kër lañ ñuy génne génn léegi nag bi ñu nangoo yokk itam ñun document de sortie de crise dañ cee énuméré woon juróomi point juróomi point yooyu mooy li ci njëkk defaguñ ko je rappelle que nangu bii ñu nangu ne yokkal nañ ñu tooy télé lañ ko defee publiquement gis nañ directeur bi jeudi vendredi ci ngoon ñu dem télé mu yabal secrétaire général am mu dikk ne d'ailleurs d'accord nañ ma ne ko d'accord nañ yow yëg nga ne d'accord nañ waaye ñun yëgaguñ ko ñun collectif ndax saisir a gooñu comme bind a goon ak signé guñu yow def nga ay publiquement waaye ñun signé guñu donc point bobu ñu né avancé amna na avancé bu avancé amé dang koy nangu wante nak avancé yooyu signé guñu ko buñ ko bindé signé ko amandé ko lañuy dang dangu nangu ne avancé bobu officiellement amna bi ci wara top topp mo moo waroon a ñu ñëw ci cité bi identifier immeuble parce que préfet activiste bi il faut mu bayé limuy def ñaar fukki immeuble ño nekk ci cité bi lan motax mu bëgg a jël ben immeuble kep diko woné wane def ko fond ci télé yi def ko page à la une ci journaux yi diko woné wane nga xamné ku ko gis dañ lay yab sax ne yow fii noo fi mën a dëkke immeuble boobu dama ne état bi mu yor état immeuble bi ñuy defee point de presse bi yoru ko yéen journalistes yi maa ngi leen di laaj maa ngi leen di ñaan su ngeen jógee fii ngeen filmer immeuble C bi ak immeuble B bi ngeen commencé fii si filmer immeuble yëpp yu nekk ci kii bi soxla ñoo protéger wala ñuy waxal kenn lu dul dëgg wala ñuy yokk wala ñuy wàññi dañoo bëgg ñu wane mbir yi ni mu demee wane mbir yi ni mu demee mooy immeuble yi bokkuñu état bu ñu ne donc boole ñëpp génneendoo ci même jour ñorut xaayut te yak xaalis bu bari la bu dee ne bëgg nañoo respecter l'argent du compte contribuable nañu identifier immeuble yi nga xam ne mënatuñoo xaar ñu may leen délai bu raisonnable may leen jox leen seen xaalis te may leen ñu wut fuñu dem dans le calme te préfet activiste bi di fi ñëw xaaju guddi mu toog këram lijjanti wa kërëm ñu jàngi mo bañ suñu wa kër jàngi ñu xey liggéeyi mi ngi ñuy bëgg sonal ci biir cité bi daanaka fi lañ ko wutal bureau suba mu ñew ngoon mu ñew dégg ngeen ko démb muy wedd di wax nee na fi 19 euh, h vingt une heure quarante cinq la fi ñëw di ci boole naan ñun amuñu yërmande lool sax jaratu la dellu dellu si parce que ay début de sortie de crise mi ngi am mais na toog këram bu ñu sécuriser sortie bi du jar gendarmerie du jar police du jar préfet ñun ci suñu bopp ñooy génn ndànk mais nañ ñu may délai bu raisonnable dañoo yori gone dëkk fi depuis ñaar fukki